Mitte TV, Mitte TV. Mitte TV, Mitte TV. Madame la maire, Madame la maire, vos impressions. Madame la maire, vos impressions. Madame la maire, vos impressions. Ah, vraiment, nous sommes vous avez dit vos impressions. Madame Dien, Madame Dien, vos impressions ah, <laughs> teelu partagé ak yéen tuuti rek suñu xam-xam ak suñu expérience man la Amadou Camara Gueye ànd ak euh, Mouhamad Lamine Dramé nekk oustaz nekk islamologue nekk chroniqueur à la 2STV mu mel ni nag islam ak politique moom nekk na ñaari yoon yoo wax islam saa nga wax politique mënoo wax wax politique mënoo wax wax bu islam donc euh, te ñu ngi leen gis walla ñu ngi leen di dégg ngeen di yëngu lu ci Pastef donc mu doon parti boo xamante ni yaakaar naa ba mu juddoo léegi huit ans la ñëpp xam nañ seen engagement seen patriotisme ak jéego yu ñu joxe wane Sénégal ak ci continent africain ci kaw loolu rek pour ma introduire Dramé kenn umpalewul wala ñu ko xamul xam nañ digganteem ak Sonko wala digganteem ak sëñ Abdou Mbacke ndax sëñ Abdou Mbacke wóolu réew man mii ñëw naa ay jotaay yu bëri yoo xam ne ay xewam la di ko fa fekk yàlla def na sax foofu laa ko xamee kon yaakaar naa moom war naa mën a wax ci Pastef moom war naa mën a wax ci Ousmane Sonko mais mën naa wax tamit ci Kër Massar ndax yàlla def na fi la dëkk di fi yeewoo lu mat ñaar fukki at mu am fi soxna am fi ay doom kon war na fee mën a wax bu baax jotaay bi jotaayam. maaleykum maaleykum salaam. mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen di leen ziar bu baax a baax di leen ndokkeel si seen bés bu am solo bi di ñaan yàlla effort yi leen def ba organiser ndogu li na ko yàlla nangu lépp luñ fi ñaan tamit yal nañu ko yàlla nangul lu kawe suñu njort comme ni ko Amadou Camara waxee rek. kàddu yi ñuy sànni sànniwanteeg yéen bu gudd kàddu yi ñaax la rek ngeen gën a góor góorlu gën a gën a jàpp ndax dama jàpp na képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci parti bii di Pastef kenn rek nga war a jël def ko sa royukaay muy président Ousmane Sonko ku xool ni muy doxalee ak ni muy dundee ak comportement am kooku mooy nekk sa royukaay ndax bu ñu tuddee président Ousmane Sonko xel yëpp jëm ci sacrifice nit koo xam ne dafa sacrifier léppam dafa sacrifier dundam sacrifier bakkanam sacrifier famiyam pour askan wi am jàmm pour xat-xat yi ak problème yi ñu nekk ñu génn ci kon sacrifice rek mooy li nga xam ne mooy indi changement ci réew yi lu ngeen ci def rek ngeen xeeb beneen bi mooy bu ngeen bëggee am ndam ci combat yi ngeen nekk da ngeen di benno joxante loxo am esprit de dépassement parce que ay nit bu ñuy ànd il faut ñuy tanewante tey mënuñu ànd di dëppoo ci lépp di bokk gis-gis ci lépp mais léeg-léeg mën nañu réeroo mais bu ñu réeroo nañu gaaw àndaat juboowaat ndax loolu mooy tax li ngeen bëgg ngeen mën fa yegg nit mën na laa tooñ sax def la lu la naqari mais boo xoolee bit bi nekk ci sa kanam ak objectif yi day tax nga bàyyi ko te nit ku màgg toujours dafay jéggale day jéllale te loolu moom la président Ousmane jàngale beneen bi bi ma leen di ñaan ngeen gën si góorgóorlu mooy fii ñu nekk si Kër Massar ah, Pastef yi nekk ci Sénégal yëpp wala bitim réew yëpp

plus lu fi nit def lu jaarul yoon rek yegg ci moom mais bu yeggee da koy métti même bu mënul yegg si ci yow yëg kon militant bu nekk war nga am kersa yëg ne Massar am nañ problème yoo xam ne tey yegg président Ousmane Sonko ci yow la il faut ngeen gën ko yërëm ko gën koo jàppale ngeen nekk ñoo xamante ne toujours day mën a ci yéen kaddu gu mujj gi nag mooy day doog tàmbali wala sax tàmbaleegul xeex bi day doog a tàmbali wala tàmbaleegul parce que ku ne xam na ne président Ousmane Sonko dañ koo tooñ tooñ boo xam ne mosuñ ko tooñ nit ci àddina waaye yàlla moo ko setal yàllaa ko setal xam-xam setal ko diina setal ko xel setal ko asamaan setal ko suuf setal ko ku ko bëgg a yàq yow yaay yàq léegi nag kooku faaw nit ñi gën a pare gën a joxante loxo pour défendre ko pour aar ko parce que défendre ko mooy défendre dëgg aar ko mooy aar dëgg réew mi bu fekkoon réew mu jaar yoon la ay procès ak yooyu sax dootul am ko nañ dem àtte lan la ñuy àtte fii lan moo fi lëndëm lépp leer complot bu yàqu na yàqu na nañ dem seet seeti leneen ah te ñu jéem a lijjanti bakkan yi ñu rey ba pare nag ñooñu ñu wax seen wax mais di sonal nit ñi ci wax yoo xam ne du mos a jeex te du yàgg ba nga tëj ko du yàgg ba nga jàpp ko di tàddeel nit ñi seen yitte yi da gën a takk gën a am pasteur gën a jaayante xam ne combat bi li ci des sax bëreetul ci kàttanu yàlla te ñëpp bu ñu jàppantee gën koo gëm ndam rek ngeen di am donc loolu mooy kàddu yi nga xam ne bëggoon naa leen koo jottali di leen ñaanal yàlla nag yal na leen yàlla gën a jàppale yàlla nangul leen nangul bépp jullit aleykum wa rahmatullah waaw xam nga Mariama Sagna damay wax ne euh, akam yàlla bu jàpp waa Sénégal akam akam yàlla bu jàpp waa parce que Mariama damay laajte toujours ana jigéen yi nga xam ne dañuy xeex ak ak yelleefu jigéen Mariama rey biñ ko rey ba léegi nanguwuñ ci wax jàpp naa ne bu fekkoon ne sax benn janax la ay façon rey boobu adduna bi war nañ ci wax mais nanguwuñ ci wax ba pare di ñu rey ak euh, ci yeneen mbir loolu nag jàpp naa ne ñun waa Kër Massar ci suñu bopp ñun ñoo war a jóg xeex ko dossier Mariama Sagna dafa war a leer kan moo ko rey lu tax mu rey ko état du Sénégal pourquoi mu nopp mais deretu Mariama warul nii leen nii bu demee nii parce que loolu gàcce na ci ñun ñëpp gàcce la ci ñun ñëpp Mariama ni ñu ko reyee ba léegi kenn ko ci dara man nag dama waxoon euh, sama yenn xarit dama leen waxoon na leen Pastef kenn mënu ko téye parce que yoon ci yàlla Muhammad bi muy woote ki njëkka a tuur deretam mooy Seyda Soumaïa Pastef bi muy woote ki njëkk a tuur deretam mooy Mariama loolu amul benn werante ne deret jooju noonu mooy suuxatee parti parti bi kenn munu ko téye parce que deret ji dafa set dafa sell te deretu jigéen la yéen jigéen yi fi nekk na ngeen jël combat boobu na na na leer dossier bii ñuy wax affaire viol loolu du dossier du dara amul fenn fooy dem ci àddina bi dëkk bu séeréer ñu ciy wax waaye coow li dëgg-dëgg mooy Mariama Mariama la ñu war a wax kan moo ko rey lu tax mu rey ko ñu indiwaat débat bi ci penc mi plateau yi ñuy def yëpp ci télé yi di wax yëfi caaxaan affaire Mariama bii la ñu war a wax Mariama deretam waruñ ko bàyyi mu nen nañ ci jóg taxaw ñu leeral dossier boobu moo ëpp solo dossier yi ngeen fii am yi ngeen fiy dégg yëpp parce que fii bakkan la te ni ñu ko reyee dafa ñaaw lan moo tax ñu noppi na du ñu ci wax lu tax defuñ ci benn enquête lu tax loolu wala moom da du nit du yoon en tout cas man vraiment am naa ci naqaru xol boo xam ne maa ngi yàlla dong ko xam te maa ngi ñaan yàlla bés ñëw mu leer te jàpp naa ne dina leer incha allah aussi dëkkandoo yi ci koñ bi yëpp euh, wax dëgg yàlla Oustaz Dramé bu waxee ba pare sax waratuñ ci teg benn kàddu ndax euh, kilifa bu waxee ñun amatuñ ci kàddu mais dañuy dañuy jaajëfal Oustaz Dramé bu baax ci taxawaayam ak euh, sunu frère bi nga xamante ni moo nekk 2STV ñoom ñëpp ñu bàyyi seen yite ñëw ànd ak ñun ci ndogu patriotique bi nga xam ni Nous ngi ci 5 cinquième édition cette année et on a fait le tour de Kermassar Nord parce que def nañu au niveau euh, dem nañu au niveau de la paroisse ànd ak suñu de chrétiens yi sommes dem au niveau des Parcelles nous dem keur Massar village nous fi aussi ci Arafat te inshallah samedi ñi ngi fassiyene dem yembal lolu nak buñ ko mënee ñepp ci jàpp. patriote yëpp ak ci jàpp ñu leen ciy remercier di leen ci jëfal di remercier jigéenu Pastef yi nga xamante ne ñoo jël initiative bi boole seen doole seen alal seen xam-xam ak seen temps ñëw def ko jiite ki ko jiite di sunu présidente soxna Ramatoulaye Ndom ñu koy jaajëfal di jaajëfal aussi sunu présidente national mi ñu ci jox ndigal muy soxna a Jéey ñuy remercier oustaz Dramé ak ñi mu àndal di remercier aussi sunu frère Issa Sène mi nga xam ni moo fi ñëw ànd ak tonton Diamanka ànd ñoom waa yëmbal ñëw teew fii ci bis bi di remercier sunu frère yëpp ñoom Apolline Diatta ku lim da ngay ku lim da juum mais ñoom ñëpp a ngi fi depuis bi ñu tàmbalee ba tey ñoom ñëpp GPS nag moom dama leen di beral remerciement ndax ñoom boo waxee ma ne ci ñoom laa bokk parce que ñun lu lu yëngu GPS moo fiy jiitu GPS moo fi mujj kon ñoom dañ leen di beral ngërëm di leen sant di sant tamit waa koñ bi parce que ñëpp génn nañu ñëpp taxaw nañu ci suba ba tey lépp li ñu fi def ñu ngi ci ànd ak ñun kon ñi ngi leen di ñaanal yàlla lépp li ngeen fi def bu déwénee yàlla na ngeen mën lu ko raw bu bu déwénee yàlla ngeen mën lu ko raw bépp coono bu ngeen fi daj yàlla na leen ko yàlla fulal ay yiw lépp lu ngeen fi joxe ci ñam lépp lu ngeen fi joxe ci seen alal yàlla na ko suñu room bi ful di sant nag sama bàjjen faama jaxate ak ndaama jiite mi nga xam ni moo nekk fii Arafat depuis bi ñu commencé ba tey ñoo tàmbalee ndoo liggéey bi di sant nag sama ay frères yoo xam ni ñooñu kenn lañ ci man muy waa Nitte TV nga xamante ni fu ma taxaw bu ma tourné gis leen ci sama gannaaw ñoom Singo si commando pako Aliou ñoom ñëpp a ngi fi wax dëgg yàlla ñun daal kàddu yi yëpp kàddu sant la di jaajëfal ñëpp di wax nag vive Pastef vive Mojib objectif final 2024 ñu yóbbu président Ousmane Sonko au palais incha allah yaa rabbi je vous remercie. detetive detetive detetive